Eh, man ku ne xam na ne anduma ak Macky Sall euh lima daj pour Macky Sall joge fi mburu daju ko ci euh Abdou Diouf nek na fek mom ñaar fukki at mais ñaari ati Macky Sall yi lim ma fi teye Abdou Diouf teyewuma ko fi ci ñaar fukki at kon nak anduma ak mom c'est clair et net On n'est pas dans des logiques de deal parce que politique du CAF, politique c'est très sérieux. Ça concerne 16 millions de Sénégalais et ça concerne toute la sous-région et ça concerne toute l'Afrique. 1984, nous avons élection locale mais 83 nous nous avons 89 ñu nous a voté 90 95 ñu avons a voté nous avons ñu 96 2001 nous avons a nous wuñu voter 2002 2002 nous avons voté 2007 ñu wara a voté wuñu ñu 2009 2014 nous ñu mais même 2014 nous nañ ko de quelques mois donc 1984 batay élection locale nous am date ba ko fixé loolu lay jëk li ci biñu nous avons élection laata nous élection dañu ne règle yi baaxut Macky Sall changé na ne baax kalti kalti di bëre di daanu 25 février ou 24 février lañ hein 24 février alors euh, ñu ne gagné nañu su opposition rapport de force kon ñu changé loi mon rapport de force les lois n'ont pas été changées Macky Sall est sorti des élections ne légui dama ñu discuter qu'est-ce qu'on fait on reste chez nous ou on discute l'opposition a dit on discute parce que ce pays-là il est au-dessus de nous et du président de la République alors nous dugg ci dialogue donc waxtaan am na yu bari ñu d'accord léegi li ci des ñu ne opposition ne dootuma voté dem ci élection tant que règle yi changé wut loolu la wax première exigence c'est l'audit du fichier sur pièce et sur place la wax war na noo dem ba ndindi nga Cheikh Seck dëkk seet ndax bu ñu nee astu bajaan ma fa dëkk ndax moomee am na fukkeet ak juróom-ñett pour wote wala dañ koo def ci fichier bi te fukkeet ak ñaar la am dañ koo bëgg a seet bien de temps ça prendra c'est des expert qui vont nu la dire nous ne la savons pas ku ñëw fi taxaw ne dañoo war a voter ñu voter sur les mêmes règles mais da ngay nax sa bopp bien Euh, parce que bañ bi délégation spéciale moi je ne suis pas d'accord. Nous dissoudre l'affaire, le président de la république 500 et quelques communes à ak départ tanal ko la et le président Macky Sall est d'accord avec l'opposition sur cette affaire là on laisse on prolonge. mais s'il y a 50 mairies de l'opposition nous dissoudre les présidents président est-ce que dina tànn ay 50 yoy mais man na pas ay nitam quand même non il faut qu'on sache vraiment de quoi nous parlons l'affaire euh, du budget ce matin man ci m'a posé ministre de l'intérieur euh, euh, question bi quand le, ministre des finances est arrivé son représentant néko euh, posé une question je vous remercie il a répondu en disant que les réserves existent